Les travaux avancent à grands pas. 98% des grosses œuvres ont été déjà réalisées, mais ce n'est pas encore la fin des travaux. C'est pour cette raison qu'un appel a été lancé aux populations et aux donateurs. Nous venons de finir à 98%, vous l'avez entendu, les grosses œuvres. Le second œuvre a démarré, les, travaux, les chantiers, les marchés concernant ce, ce second œuvre tous déjà été lancés, mais nous avons encore davantage besoin de la contribution euh, donc de toutes les bonnes volontés. Une visite guidée dans le chantier précédée d'un point de presse afin de faire le bilan d'étape. La transparence comme recommandation du Khalif général. donateur euh, de cette, euh, de cette œuvre, de qui ont le plus contribué pour justement le faire l'économie du niveau d'avancement du chantier. Ah, absolument, ça c'est une recommandation du Khalif général de Tijan Selim dans sa rigueur habituelle. Tout le monde le connaît comme quelqu'un de très très rigoureux, très très transparent par rapport euh, euh, à tout ce qu'il euh, entreprend. La commission en charge de la poursuite des travaux de construction de la grande mosquée de Tivavon s'engage à respecter les délais. liggéey tabax jumaa Tiwaawan ñu ngi avancé bu baax a baax daanaka liggéey yu mag yëpp jeexal nañ leen na waane nag am na liggéey yu des loolu tax ñi nga xamante ne ñoo yor commission bi di ñaan ñi nga xamante ne dugal nañ seen loxo ngir ñu gën a dugalaat seen loxo waaye tamit daal askan wi mu dugal ci loxoom bu baax a baax. woote bi nga xamante ne xalifa bi woote woon na ko. Euh, ci jàppale ko ci liggéey bi te it du sax moom la ñuy jàppale waaye suñu bopp la ñuy jàppale euh, ndax yoonu yàlla lu te euh, doomu aadama def day dellu siwaat ci boppam man de lazi yuqridu llaha qardan xasanan fa yudaa'ifahu adaafan kasira ab nemmeeku sànce bi li ko jiitu nag janoog taskatu xibaar yi bi nga xamante ne def nañ ci bilangu liggéey bi fan la toll waane nag mën nañ jàpp ne lépp ci lu leer lay amee liggéey bi avancé na baax parce mën nañ pour cent ci gros œuvre bi terminé nañ ko ba engagé li nga xamante ne mooy second œuvre bi euh, euh, ñu gis ne presque chantier yi ci concerné wu yëpp euh, lancé nañ leen wàllu climatisation bi wàllu décoration intérieure bi wàllu électricité bi tabarakallah ak sonorisation bi loolu yëpp door nañu liggéey bi mais également feeñal la nit ñi lañu ci def dellu na ca fa mu war a dem na ca fa mu war a dem commission bi yor liggéey bi xam ne ne daal dina def kémtalaay kattanam ba respecté délai yi